Bachir Diawara ñu ngi lay nuyu am mbégte dalal ci matinalu tay bi dalal jàmm ci Rewmi FM. maa lay nuyu bu baax Fatou di la ziar di ziar ñu ngi lay delloo ziar alors euh, Bachir euh, ku la xam euh, xam sa diggante ak Karim Wade jegeñaaleem nga ndax nekkoon nga chef de cabinet am ban réaction la am ginnaaw bi ay avocat am waxee ne fi mu ne mën na doon électeur te it mënees na fal depuis le 21 août bi ñu weesu bu ñu sukkandikoo ci loi. waa bi. waaw maa ngi lay gërëm bu baax Fatou. di dëggal encore euh, li avocat Karim yi wax euh, ci maanaam mën a bokkam ci mbindu bi ci liste électorale ak aussi mën a bokk ci ay jongante ci wàllu élection d'après ni ko ko euh, loi bi mayee parce que bu ñu fàtte ni. CREI yi nekk na tribunal boo xam ne ñëpp dañ ko ŋàññoon bu baax a baax a baax ci doxalinam ak orientation bi nga xam ne jëloon na ko ci wàllu politique ñëpp xam ne lii pour faagaagal benn kujj euh, benn wujj la ci wàll politique defe naa ni loolu wër na Sénégal wër na àdduna ñi nga xam ne dañuy yëngatu ci ak ak yellef doomu adama fii ci Sénégal wax nañ ko ba sonn boo demee ustam ci bitim réew mboolem juridiction bu nga xam ne état du Sénégal dem na fa pour jéem a clamer mbiru Karim Wade benn rek laa ci jël mooy dem na ba banque mondiale ñaan ko mu jàppale ko ci xool saytu li nga xam ne mooy dossier Karim Wade waaye Banque mondiale dañoo retourné génn benn rapport bu leer wax ne Karim Wade mii li ngeen koy tuumal dara amu ci euh, conseil des droits de l'homme bi nga xam ne mooy bànqaas bi gën a kawe ci wàllu yoon ci àdduna bi nga xam ne réew yëpp dañ ci bokk également seetal Karim Wade wax na nii nga xam ne noonu ngeen ko toppee condamné ko euh, bokkul ci li nga xam ne dafay dafa dafa sàmmook li ñuy wax pacte euh, des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques donc réaction bi nga xam ne Karim Wade def na ko Karim Wade defagul benn réaction personnelle collectif am collectif avocat yi ñoom ñoo euh, fàttali askan bi askanu àdduna ak état du Sénégal li nga xam ne moom mooy wareefam ci dossier Karim mm. xam nga dañu ne ñoom li tax ñu tere woon ko mu bindu ci liste électorale yi moom mooy article L un L L trente un du code électoral bi nga xam ne dafa ne ku ñu condamné da ngay topp ak diir boo xam ne doo mën a bokk ci élection yi waaye article L trente deux dafa wéral ni dëggal ni luñ la luñ la luñ la génn ci liste électorale yi luñ la xañ say ak ak yelleef ci wàllu condamnation du weesu cinq ans. Hmm. te boo nattee jamono bi nga xam ne moom lañu condamné woon Karim Wade muy euh, vingt août euh, deux mille quinze nga natt ko ci vingt et un août euh, alors deux mille vingt et un août deux mille vingt di nga xam ne mat na cinq ans defe naa ne coow li foofu du ay question de droit dañuy lire tout simplement loi bi après ñu appliquer ko. Hmm. donc réaction avocat yi moom moo am fu mu nii am na yeneen réaction yoo xam ne ñu ngi am jóge ci a a mag ku mel ni professeur Mari Boireau nga xam nga xam wax. ne euh, Karim mënagul nekk électeur wala nga xam nga xam nga ñeneen ñi euh, hmm. ñi réagir déglu naa leen. Hmm. mais vraiment boo leen nga xam ne ñii <laughs> wax dëgg yàlla ñoom bu ñu wax sax maanaam dañ naan foog na nañ ñi foog nañ ñi foog nañ ñi or mbir mi dootul foog da ngay war a wax ni carrément lii moo am lii la yoon wax man ñi ma dégg ñuy diingat décision bi nga xam euh, position bi nga xam ne moom la avocat Karim wax yëpp ay argument yu oyof la ñuy la ñuy doxal déglu naa ki nga xam ne moo nekk ci conseil des droits de l'homme bi féete ci nguur gi muy Pape euh, Sène xawma euh, dégg naa ko mais boo déggoo li mu wax da nga xam ne kii wax dëgg yàlla amul fenn foo xam ne dafa sukkandu fu fu wér pour jéem a tere Karim mu nekk ci liste électorale yi donc li wér te moom mooy Karim Wade euh, dañu leeral dëgg bi nga xam ne moom la ko askanu àdduna jox ci wàllu yoon dañu leeral li nga xam ne moom lañ doon dénoncer tout le temps ne CREI nekkul juridiction boo xam ne dafa sàmmoo ak ak ak yelleef de doomu aadama ba fu nekk ñu ŋàññi ko fa par conséquent yàlla def na bi nga xam ne euh, ñoom sax ñu ngi koy jugé moom Karim Wade Euh, procureur spécial ba fa nekkoon ci CREI dafa ñaanoon pour que ci condamnation bi ñu boole ci xañ Karim Wade ay ak ak ay yellefam ci wàllu vote maanaam ay droits civils ak politique pendant dix ans mm. waaye CREI luñ ko ŋàññi ŋàññi ŋàññi ñun ñoo tàq ŋàññi CREI xëy na si position boobu euh, toppul woon procureur spécial bi donc dafa condamné woon Karim Wade rek sans pour autant mu xañ ko ay àqam ak yelleefam donc état bi ci li mu sukkandiku woon moom mooy ci loi électorale wax ne ku ñu condamné doo bokk ci élection yi comme condamnation bi nag mat na cinq ans loolu loi wu Sénégal bi wax bu ñu la condamné bu demee bu passé cinq ans wax dëgg yàlla da ngay a bokkaat ci liste électorale yi mm-hmm. loolu c'est juste rek bu fekkee dañu bëgg jox dëgg mais su fekkente ni da ngay xool ci beneen angle CREI yi ci boppam ak lépp loo xam ne daf ko làmbool maanaam juste ci àdduna daf ko neenal maanaam jugement Karim Wade bi dafa illégal sur le plan juridique ak sur le plan moral amul benn ndëgërlaay boo xam ne tey état du Sénégal mun na see sukkandiku alors pour Euh, jéem a jam Karim Wade wala mu jëm koo xañ ay àqam ak ay yelleefam loolu du man maa ko wax hmm. mais bànqaas bi gën a mag muy conseil des droits de l'homme nekk ONU nga xam ne Sénégal ci la bokk hmm. te bu ñu fàtte ne Sénégal dafa bokk ci ay convention ak ay traités internationaux yoo xam ne suñu tur la fa yóbbu ñun suñu la fa yóbbu ndax bu fekkente ne mbir bokk ay réew ne nii la ñuy doxalee su fekkente ne Sénégal pour des intérêts politiques nguur gi fi nekk dafa bëgg a salfaañee yoon yooyu dañuy jàpp Sénégal délinquant international la te loolu yaakaar naa ni nekkatul xeexu Karim Wade waaye xeexu patriote sénégalais bu nekk la moo xam danga nekk fii ci biir réew mi moo xam danga nekk ci bitim réew xeexu Sénégal yëpp la parce que c'est pour préserver la démocratie. d'accord gannaaw léegi avocat mi nee nañu mën na bindu ci liste euh, électeurs yi nekk na électeur waaye itam mën nañu koo fal xanaa dina ñibbisi nag moom Karim. incha allah ñibbisi bi bu àpp bi jotee rek mu ñëw. dafa fekk ne moom dafa am agenda parti bi également bi nga xam ne ci la sukkandiku muy appareil politique am muy parti démocratique sénégalais également daf ci am ay position yoo xam ne position yu claire la su jotee Karim Wade dana ñëw fii mais li wér te wóor ñi nga xam ne dañuy wax ne Karim du ñëwaat ñooñu dóor nañ seen loxo ci ëkk Karim Wade dana ñëw fii ci Sénégal dana dund ci liste électorale yi dana bokk ci jongante yi incha allah en 2024. moom d' accord mais Bachir nag nañ waxante dëgg Karim bañ dalee wax ni day ñëw ba tey euh, kenn seenul takkandeeram te loolu euh, duma la ko yëgal am na ci militant ak ay partisans yoo xam ne euh, tàmbali naa def ji xijaaxa ci seen xel est ce que tamit tey jotul. ngeen bind ñooñu ci Karim dana ñëwam du ñëw moo gën ngeen di joxe di fomm dana ñëw dana ñëw te kenn du ko gis itam. bu yàggee day foofu hmm. li may leeral rek mooy contexte bi nga xam ne moom moo état du Sénégal xañoon Karim Wade mu bañ ñëw fii ci Sénégal contexte boobu dañ ko weesu. muy élection présidentielle hmm. maanaam lu nekk def nañ ko bëgguma dugg dans les pour empêcher Karim mu ñëw fii ci réew mi mais li wér moom mooy ñun détermination bi ñu am ak engagement bi nga xam ne moom la parti démocrate sénégalais am ak képp koo xam ne patriote nga démocrate nga nekk ci biir réew mi foo ko natt rek weesu na ko pour que Karim a mu ne. dafa am leneen lu ñu def pour Karim bañ a ñëw lu ñu yëgul. mais ci la ñu dëkk état du Sénégal loolu ci la ñu dëkk état du Sénégal ki jël nit kay exilé ko de force defal ko passeport ci biir prison forcé ko mu génn xam nga ni kooku lépp lu mu mën a def pour mu empêcher ko parce que coow li coow li lenn rek la Macky Sall moom moo ragal Karim Wade mais gis nga jamono jii ñu toll nii Macky moom dafa war a xam ne par A ou par B 2024 incha allahu rabbi bu ñu yàlla mayee gudd fan ak wér dana fi jógeeg jàmm ak salaam. kooku moom lu ragalee Karim Wade Bachir. non parce que ragal na Karim Wade parce que liggéeyul xam nga boobu Macky Sall liggéeyoon du ragal Karim Wade. mais ñàkk liggéey gi mu liggéey ak espoir bi nga xam ne moom la jeunesse bi jox Karim wadd espoir bi nga xam ne mouvement de soutien yi dañu organiser wu un peu partout au niveau national ak international PDS taxaw mu am ay militants ak ay sympathisants yu koy jàppale loolu la jàpp ni comme man liggéeyuma ki nga xam ne tey moom moo fi nekk te ay la yéwén ñu jàpp ni peut-être bu yoree réew mi dina mën a jëm ci kanam Karim Wade la am na ñu bari ñu xalaat loolu am na ñoo xam ne mën nañu bañ a xalaat loolu mais lu ëpp ci ñi nga xam ne ñun ñoom la ñu xam ñoom la ñuy liggéeyal dañoo am engagement nag ay sénégalais bon temps ànd ak Karim pour jox and ak moom ci projet politique boobu loolu moom moo tiital euh, Macky Sall loolu rek la. coow li mu bañ Karim ñëw mais est-ce que Karim tamit du contrainte par corps bi la ragal Bachir ndax bu ñëwee faa mu fay cent trente lu muy ragal. Karim hmm. bu fekkonte ne dafay am lu muy ragal ba ñu ko woowee bu njëkk ne ko ñëwul ñu jugé le fii ci état du Sénégal te xamoon na ni jamono yooyu noonu yëpp gars yi dañu planifié woon benn entreprise pour jëm ko sacrifié kon du ñëw mais dafa bàyyi liggéeyam daal di ñëw wuyu justice Sénégal donc bi mu ñëwee prison fekk aussi yëpp kenn musul dégg Karim Wade mu sëqat ci prison kenn musu ko dégg mu jooy mu dem ci ak beaucoup de dignité kon Karim Wade amul lu muy ragal ci ay affaire prison kooku moom dama bëgg mu leer naññ. Hmm. bu dee fit la loo natt ci Ablaye Wade rek lu raw mi ngi ci Karim Wade. Ah kooku moom dama bëgg mu leer. dana ñëw le moment venu te ñun ñu ngi koy waajal bu baax a baax lépp lu mu laaj lép lu mu laaj ci wàllu xeex ci wàllu taxaw ci wàllu engagement ak détermination ak sacrifice ñun pare nañ pour def ko. léegi mënoo ñu junj sax ban jamono lay ñëw. mënoo ñu junj tuuti. non mënuñu wax pour le moment ni exactement ba jour lay ñëw. parce que mm. ñi ngi jëm ci ñi ngi dëgmal ay échéances. nee naa la tout à dafa am agenda am parti bi aussi tamit dafa am ay éléments d'appréciation yoo xam ne dañ. boole ak loolu nga xam ne moom mooy agenda am le moment venu moom mu décider jour bi nga xam ne ci la ñëw mais li wër te wóor moom mooy Karim mooy suñu candidat dana ñëw incha allah te ñi nga xam ne ñooy wax ci presse bi ñii naan Karim du ñëw ñooyu woo ni ba wax tout à l'heure rek dañuy dóor seen loxo ci ëkk c'est kooku c'est méconnaître Karim Wade c'est méconnaître le parti démocrate sénégalais coow li moo jeex coow li moo jeex c'est-à-dire que bundaxatal bi nga xam ne moom la ñu teg Karim Wade depuis 2012 moom la ñu wax ne na dakk ñun dinañu teg suñu bakkan pour que loolu dakk pour que ñu jox ko ay àq ak ay yellefam suñ ko joxul ay àq ak ay yellefam ñu fokkorti ay àq ak ay yellefam. parce que da ngeen bëgg ñu ko. non déggoo lu ne. moom li nga xam ne moom lay conseil des droits de l'homme wax waxul sax ay affaire amnistie dafa ne nañu réexaminer nañu réexaminer procès bi nañu xoolaat procès bi parce que procès bi baaxul lépp loo xam ne dafa tukkee ci jugement wu CREI bi donc loolu dafa neen maanaam amul benn solo par conséquent état du Sénégal moo war a tirer les conséquences Macky en premier moo war a les conséquences xam ne tey pour des considérations politiques mi ngi nasaxal suñu démocratie pour des considérations politiques mi ngi jéem alors xeex ñi nga xam ne ñoom ñooy adversaire politique am di ko jaareel ci ay wàllu yoon loolu nag dafa nekk loo xam ne précédent bu dangereux la kon cela veut dire que donc Sénégal boo fi nekkatee il ne suffit pas d'être un bon un Sénégalais ambitieux pour accéder véritablement à ces à ces opportunités aux opportunités qu'offrent les droits civils et politiques waaye da ngay nekk koo xam ne da ngay arranger nguur gi wala nga ñàkk arranger nguur gi ñun nag nekkuñu ci loolu ñun li ñu bëgg moom mooy Sénégal li nga xam ne teg nañ ko Karim Wade buñ ko tegati benn doomu aadama ci Sénégal waxuma sax Karim combat bi dafa dépassé Karim Wade c'est un combat de principe muy Khalifa Sall Sow di keneen ak keneen kenn amul droit xañ ay ak ak yelleef benn sénégalais où qu'il se trouve. loolu mooy dëgg te loolu pare nañ ci. d'accord léegi Bachir 138 milliards yi nga xam ni euh, alamaanoon nañ ko Karim Wade euh, nar na ko fay Sénégal am déet. man je pense que état du Sénégal tey ji war na am gàcce sax di wax ay 138 milliards li tax ma wax ko moom mooy neena naa la dafa am bànqaas yu mag yu nekk ci àdduna bi yu neenan li nga xam ne moom mooy décision wu bi maanaam CREI amul sens li nga xam ne moom la décidé amul sens amul valeur juridique amul valeur morale mun naa ko lim rek ci ñeenti ponk ñoom bi ñu demee Paris diw de engagé benn procédure bu ñu wax ci français exéquatur maanaam pour ñu valider maanaam pour ñu dëggal li nga xam ne moom la tribunal CREI bi. Euh,

conseil des droits de l'homme ñëw ne leen lii nga xam ne moom ngeen condamné Karim Wade c'est contraire au principe Hum, au pacte international relatif aux droits civils et politiques CEDEAO wax leen bu baax ne leen kii justice bi nga xam ne moom moo ko moom moo ko moom moo ko moo ko jugé war ko jugé procès bi da nekk un procès inéquitable et unique kon day dolli dolleeku ci li nga xam ne moom la organisation de droits de l'homme yi nekkoon ci àdduna bi wax ci njëlbéenu procès Karim Wade euh, Fédération internationale des droits de l'homme def na fi déclaration ñaaññi CREI bi ci ni muy doxalee ak ñi nga xam ne noonu la singalee Karim Wade ne leen lii ngeen di def du lenn lu dul acharnement politique ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir Sénégal duma leen lim ba ci ndem si yàlla ki nga xam ne mooy Abou Aboubacry Mbow. d'accord kon Bachir su la déggee Karim narul fay 138 milliards. non du question narul fay. Hmm. xam nga. état du Sénégal moom la Karim Wade amalul dërëm fiftulu Mali. il faut que loolu mu leer. leer na Karim Wade amalul ñaari dërëmu Mali ki nga xam ne moom mooy état du Sénégal. Hmm. loolu il faut que ça soit clair li tax conseil des droits de l'homme demande réexamen du procès mais xam na bu baax lu tax mu teg ko. loolu mooy du fay. mais du question du fay c'est-à-dire bu fekkonte ne lu mu war a fay la da koy fay. mais lu mu warul fay du ko fay. leer na ba na Bachir alors ñu jeexal ci lu gàtt ak euh, wàllu télécommunication ci Sénégal ginnaaw yow yaay secrétaire national chargé des télécommunications euh, ca parti démocratique euh, sénégalais muy secteur bu am solo ndax day dugal comme ci réew mu mel ni sunu bos alors noo gisee ni nu ko yore boobu secteur. waaw secteur télécommunication il faut le reconnaître quand Euh, am na certes ay avancées te avancées yooyu sax ñu ko entreprendre secteur privé la moom mooy audace bi nga xam ne yenn secteur privé yi am nañ ko ñu dugg ci concurrence bi loolu lu ñuy rafetlu la entrée expresso ak yeneen yi nga xam ne ñëw nañ fii yooyu tamit lu baax la mais j'avoue que dafa war a am préférence nationale dans la gestion du secteur man euh, gis naa ay sénégalais yoo xam ne am nañu ay initiative yu am solo du ma fi tudd tur pour def de la publicité xam nga ki may wax mm-hmm, mm-hmm. mais ñu ngi ko xañ ay àqam ak ay yellefam ci wàllu woowu loolu nekk na loo xam ne lu doy waar la beneen bi mooy président Abdoulaye Wade bi fi nekkee dafa amoon yoon bu leer bu mu jëloon pour que Sénégal mën am ay bénéfice ci li nga xam ne moom mooy appel entrant yi. yaa ngeen di rappelé wu ci appel ci euh, euh, ci ci ci les les l' euh, affaire Global Voice. bi nga xam ne par exemple c' était c' était par rapport aux appels entrants. gis ngeen quatre-vingt-dix milliards yi nga xam ne état du Sénégal da ko ci doon am bi Macky Sall ñëwee presque daf ko xañ réew mi loolu yëpp. ay difficulté la soo xoolee tey jii fii technologie toll fii télécommunication toll ci àdduna bi nga xam ne moom mooy locomotive économique parce que damay jàpp ne tey ki nga xam ne moom mooy analphabète wu ëllëg mooy ki nga xam ne xamul li nga xam ne moom mooy télécommunication mooy xarale yu bees yi tey Sénégal waroon na ñu def benn programme bu nga xam ne wifi bii ñuy wax ni nga xam ne xale yi dañuy wër di taat di toltalaan ci weti kër yeeg yooyu ñu organiser ko de telle état bi da koy supporter bu leen fàtte ne ñun suñu position par rapport n'est-ce pas la fracture numérique dafa nekk loo xam ne lu am doole la Abdoulaye Wade demoon na ba Suisse mobiliser tubaab yi ak presque africain yëpp autour d'un fonds de solidarité numérique pour lan ñu fexe ba gap bi nga xam ne am na diggante euh, li am ci wàllu technologie ak population yi nga xam ne amuñu ci accès ñu jëm mm-hmm. a xool loolu ñu koy dindee mm-hmm. je pense que yoon yooyu la état du Sénégal war a jël et encore une fois ñu fexe ba préférence nationale bi nekk loo xam tamit dañ koy jiital bañ jël rek di privilégier ay yenn société yu mag yi gis ngeen fi coow orange bi tout mm-hmm. récemment dañuy yeewu benn jour rek ne yokk nañ seen i taxe mu jur fi coow loo xam ne lu rëy rëy la je pense que war nañu mun a imaginer waat beneen format bu ñuy gérer suñuy télécommunication que li nga xam ne mu ngi jot a am également école yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk di tàggat ndaw ñi ci wàllu communication mm-hmm. ñu jéem a gën a diversifier filière yooyu parce que communication nag li muy créer ci emploi ci yi wax dëgg yàlla euh, Rwanda rek doy na exemple pour ñu citer ko. tey ji demee ba egg benn niveau de croissance c'est parce que en grande partie ça été boosté par le secteur des télécommunications. jërëjëf Bachir Diawara amoon nañu mbégte lool dalal ci matinalu tey bi yaa ngi bokk ci comité directeur bu parti démocratique sénégalais nekk secrétaire national chargé des télécommunications ñu ngi lay. gërëm maa ngi lay gërëm jërëjëf.